mbay daani tey dañuy euh, dem waxtaanee góor ñi nga xam ne ñu ngi ci immeuble yi dëkk seen bo jox soxna yi si benn kër waaye tam ñu doxaan ci même immeuble bi muy loo xam ne su kaa mbay bëri na jamono jii de <laughs> surtout suñ koñ dañ dem seetaan élément yi te <laughs> jigéen da nga koy jox cër même boo demee ba nga xam ne yow da ngay doxaan bu mu doon ci immeuble bi nga nekk demal doxaan feneen sa jabar bu mu koy yëkk. jabar da koy jox cër. tey boo doxaanee ci biir immeuble bala nga doxaan ci koñ bi xale bu jigéen manifester bu ne mun na ko def. façon bu ne mën na ko def di ko naqaral wala mu teg ko yenn yi te jaru ko imagine toi jigéen buy ju quatre di matin di liggéey balaa muy wàcc cinq heures wala six heures su ñëwee yaa ngi ci waañ bi yaa ngi xool xale yi yenn saa jot bi nga waroon am sa jëkkër sax dayatoo ko amati ndax liggéey bi tënk na ndax jamono bi moo mel noonu i góor ñi takkatuñ jigéen ñee leen di takk ñëw dëkkal ko ñëw doxaan la may bu njëkk sax léegi jigéen ñee ko joxe mun na nekk ci ku góor ki mun na nekk ci ku jigéen ki parce que yow boo nekkee ci kër nga mu leer na la yow sa moroomu jigéen moo nekk ci kër gi ak jëkkëram maanaam am na ci yenn yu bari yoo xam ne nii war nga ko mën a rus sa def wala nga jomm kaa def. te góor yàlla def ko bindee noo xam ne nii bu wul boppam rek mun na mun na def leneen lu dul noonu mais amaana kooku noonu bu fekkoon moom correct na rek bu nga ko bàyyee ak jabaram rek loolu noonu yaakaar naa ne mun na bañ am quoi. góor gu respecté sa jabar fu laak fay da ngay def. maanaam bu ci def daraay caaxaan. non man de wax dëgg yàlla bu ma gisoon koo xam ne nii loolu daal na ko ba mu ne moom day divorcé damay toog waxtaan ak moom na ko lii jarul divorce. mais góor-góor la fam loo xam moom jigéen ñi ñoo koy ñoo koy provoqué. léegi nag bu maanaam jigéen ñi provoqué nañ la aussi da ngay góor tam en fin de compte est ce nga cee mucc c'est ça le problème. non jigéen du rëbb sooy góor mooy rëbb sooy jigéen moom heure bu décidé moom li mu bëgg moom loolu sax mooy dëgg bu wér nag ak lu mu métti métti war nga war a mën a teesu bopp nag maanaam sa bëgg-bëgg war nga ko mën a war nga ko mën a téye moo toll foo xam aussi jigéen nga am sa jëkkër amaana téye woo a géré keneen gën la ah, rek te boo boo xefee mu jël ko nangu ko rek macha allah su kàmbay ñoo ko déggdoo mu nekk kàddu yi nga xam ne askan wi yëkkati nañ ko ci thème bi nee naa la lu ne fu ne ku ne ca ba tax na ñun dañ fee nekkal ñëpp kon nag su kaa euh, thème bi dafa doy waar waaye tamit dafa dafa dafa metti ndax am na jigéen ñoo xam ne ñu ngi koy dund te jigéen ju ne bëgg na sutura euh, si diggante ak couple si diggante ak ki nga xam moo di borom këram bëggul kenn di xam li ma xam moom lay dund ak jëkkëram te dama naan ba tey man dama naan kii sëy ci kër gi loolu bu dalee man du ko condamné du ma ko joxoñ baaraamu tuuma su mbay parce góor moo baaxee noonu góor mënoo def lépp lépp lépp ba du gis ki nga xam ne bëgg na ko ci mbedd ma du ci dem loolu munoo ko des fois nag dañ naan li nga def li la war may li la war danga kaa war a def dëgg la mm-hmm. defal sa wareef def li nga xam ne euh, boo ko defee amaana yow mii sa borom kër sax même bu demee buy doxaani bay doxaane mbëggeel moo ko ca dugal parce que am na góor ñoo xam ne su kaamay ñu ngi doxaane parce que seen jabar mënul yenn yi ñu ngi doxaan parce que seen jabar motalewul yenn yi mais boo motalee sa place mot sa place fees sa euh, euh, chaise bi nga toog yaakaar naa sa jigéen buy doxaane peut-être danaan kii dama ko bëgg fu laa ko tax di doxaane du dem ci dara tax dara mais ba tey euh, dama naan man ku jigéen ki gel bi nga xam ne moom mooy nangu ñu koy doxaan mu nekk ci immeuble bi xam ki nga xam ne moom ndaw te des xam ki ma jox bi mm-hmm. ndaw si nga xam ne moom mooy génn jëkkëram bu wàccee si escalier bu ñu tëjee dañuy mel ni ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak bàyyi sukaa mbay barki alxuraan kem day wax ak moom waxtaan tàppante xam nga bu nekk yoo xam nit ki di dëmm dina la rey jaare la ah, copine bi moo ko jox wala borom du copinam dañoo dëkk nii rek ci benn immeuble ndaw si di génn ak jëkkëram ci benn immeuble bi même kër gi mu nekk loo xam ne sukaa ma dama naan boo demee ba koy def sax bul sekk ak jabaram dara parce que moom mënu ma comprendre yow may nekk sa jëkkër di ko neexal ba mu neex saa bu wàccee jàdd sama appartement balaa yegg sa bës ba pare yow bu ma dajak yow bëgg laa for woon na déedéet du ma ko def am na ñoo xam ne Souka Mbaye ay ay ay ay laa ko mën a tuddee sax dañoo dañoo dañoo foo. Mhm. liñ lay won ak li nekk bokkul. te des fois Souka doo ko foogee sax gis nga yenn yi bu demee ba éclaté wu da nga naan diw mën na maa def lii. ñoo xam ne bi des fois bu ngeen wàccee si escalier da ngeen mel ni kenn. waaye da ngeen mel yéen ñaar yéen a bokk benn lal bi ngeen tëdd benn yéen yéen a bokk ndey ak baay bu ngeen wàccee ci suuf tam pare te bu ajoo yow nga aju yaa ngay jëkkëram ci téléphone des fois yaa ngi loo xam Souka Mbaye du ma ne kii mais dafa ñaaw mhm. nit ki boo dem bay def yenn yi au moins nga am yoo rus gis nga nit lépp loo gis de base la am na foo xam ne boo fa juddoo yaroo fa màggee am yenn yar yi la xam ne euh, sa mu ngi koy def si yow mhm. yu bëri da nga koy seexlu man newuma ko góor du doxaande am na ci droit parce que góor moo baaxoo loolu góor mënoo fexe fexe fexe fexe fexe ba du gis lu mu bëgg te du ci topp loolu mënu nekk mhm. waaye tam yow kuy jigéen ki am na ñoo xam ne loolu ci dugal ñàkk fayda la ndax lan mën na ma fay sama appartement moom moo xam comme moo ma fekk si rek sama yoon nekk wala ma xongañal kii bi ma xongañal jabar am na ñoo xam ne noonu la ñuy sutaambay mm, mm, nekk yow si biir kër gi des fois mm. xam nga sax ki ñëw sax euh, di nekk yow ay genre xarit fekk mu ngi indi sa jëkkër sax moo gën ki nekk yow sax di mu ngeen dajee si escalier yi mu lay jaay affaire di la sànni ay trac di la mais ba tey dama naan aussi su kaa mbay loolu tam ku góor ki am na ci part de responsabilité dëgg la bien vrai boo bëggee dara da nga ciy dem ba jeex mais nga dem ci ak fulla mhm. dem ci ak fayda ba sa jabar bu yëgee dina xam ne ah sama jëkkër peut-être que mbëggeel moo ko dugal ci kii mhm. waaye boo defee fulla sa jabar du mer mais bu mm-hmm. nekkee da ngaa bëgg doxaan doxaan gu yàgg loo am yóbbu ndaw si mm-hmm. fu ñu leen fekk yéen ñaar a ngi taxaw si bopp koñ yooyu dama naan su kaa mbay manqué la ak manqué sa soxna wax ak sa balaa ngaa yee bu mën nga jaar appartement léegi loolu dëkkandoo yi di ko gis mu leen sa jabar lii bu ko yëgee dina na yoo xam ne su kaa mbay ñooy métti jigéen ñi am na yoo xam ne góor ñi jigéen ñi parce que ki nga xam ne dafa jógee kër kër bàyyi ndey bàyyi bàyyi bàyyi ay mbokkam ñëw toog di la sayal su kaambay kooku da nga ko war a suturaal mm-hmm. da nga ko war a jox cër da nga ko war a jox respect bi nga xam ne moom nga ko amal ni mu la ko joxee na la respect réciproque ni mu la ko joxee delloo ko ko mm-hmm. boo demee bay doxaan demal ailleurs wala boo mm-hmm. demee bay doxaan ci biir immeuble bi na doon loo xam ne fu la moo la tax a mais doxaanu yàgg yi kii di sànni tara sa jabar di ko yàblu boo loxee benn mu wax sa jabar fukk des fois mun na la safu ma ndax sa jëkkër man la amee di wax yoo xam ne su kaambay lay naqaral sa soxna kooku naqara soxna yow yow yaa tax yaa ko may buntu ba mu naqaralee sa soxna kon yow mi sa borom yow mi borom kër gi yow yaa métitlu wala yaa naqaral sa soxna te góor su ne sukaarma yaakaar naa da ngay chercher li nga sa plaisir soxna dëgg la góor su ne yaa ko li nga xam sa soxna loolu bëgg nga war dox mais boo wàccee yoon rek sukaambay euh, dañ naan yaa tooñ te man lii gisuma ci benn kii boo xam ne war nañ ko mun a rapproché nga xam moom moo di ndaw si mm-hmm. alaaji sa waaw yéen yéen xam ngeen seen bopp. lan na waxal nga ni. ah ba ah, balaa maa dee jigéen ñi ne fees sa place waa ji quatre places la yor oto bi mënuloo ko fees. kaay ma xamal la rek il faut que ngeen xam il ne oto bi mënuloo leen koo fees la bés bu gisee ko mu bëgg nag. kaale ma yaa ngi dégg yow Boubacar. eh man eh, man. <laughs> <laughs> déglu ma mm-hmm. daa daa daa dugalaat beneen daa tegaat beneen place mu dese ko ñaari. ñetteel ay waay ah yow tamit nag bàyyi eh, ah. ngeen xam ni. Ah. ngeen xam loolu ba pare c'est que jigéen yi dañuy nekk ci défensive boo xam ni jàpp nañ ni ñu ci bari dañoo jàpp ni ku leen takkal ñaareel rek. maanaam dañoo matut li ñu doon. Mm-hmm. te du loolu. loolu day nekk erreur jigéen ñu baree bari jigéen jii ñëw tamit day yaakaar ni kii ñuy takkal. maanaam feesut place loolu it njuumte la. Mm-hmm. goo xamante ni kii eh, day am bu ko waaj a wut nag parce que waaj a mën naa ñëw di doxaanee. jabaram ah. mais sama jabar nii yooyu yëfu ñàkk fay waaw loolu léegi damay ñëw ci dama doon wax lool pour. Eh, ñëw léegi ci li nga xam ne mooy cadre kii. Mm-hmm. Eh, ak lu mu ci mën a doon. man jàpp naa ni am na góor ñoo xam ne dañ koy fajee mer mm. di doxaan ci secteur boo xam ni pour seen jabar sax di yëg pour ñu mm. koy xoñoñal di ko def yenn yi am na góor ñoo xam ni loolu lañ dem loolu baaxut góor du fayantoo yëfu ñàkk mm. fayda yooyu am na yoo xam ne tamit du yëfu góor mm-hmm. dafa góor bu ñu demee bañ ne la góor ne jigéen ne góor dafa mat ñu yëkkati jigéen teg ko ci loxo dafa am loo ko war a tane ba am na yoo xam ne jigéen la war mais góor waru ko mm-hmm. man jàpp naa ni waxuma la sax ci immeuble mais ci alentour bi sax di fa ngoro euh, jaadul parce que am na jigéen ñu bari ñoo xamante ni bi tamit dañ lay dugg c'est pour yàpp lu yàpp sa jabar mm-hmm. dëgg la te nag man dama jàpp ni bu ngeen nekkee euh, képp koo xam ne dafa bëgg a sa jabar dafa laa yàpp mm-hmm. parce man duma jël nit koo xam ne dafa yàpp sama jabar ma koy boole euh, ci man mm-hmm. parce que damay xam ni kii kon respecté wu ma parce que bu fekkee dafa dugg rek pour yëpp sama jabar loolu duma ko def moo tax am na yoo xamante ni bi pareen saay par respect ak tamit respecté sa bopp respecté say sa jabar sa kiiw ak yooyu mm-hmm. boo demee bay def leen ni nga def ko ailleurs foo xamante ni fii peut-être kenn euh, kiiw la nga ngoro foofu say ngoro mais di ngoro ci zone bi nga xam parce que dama gis ñu bari ñoo xam ni xuloo yu mel noonu am na après ay mhm. tapage parensaay kii li mu wax sax dafa gën a jege mais parensaay sax ci biir koñ bi mhm. nga gis ay tapage di am sa jëkkër maa koy def nii ak maa koy def naa mhm. bu boobaa toroxal nañ la yow jëkkër ji ba noppi euh, toroxal nañ sa jabar dafa am yoo xamante ni bi pour man euh, rafetul te it jaaduwul parce que un peu de respect nit ñi bu ñuy ànd dañu war a ànd tamit ci respect dañu war a ànd ci nit ñi sagal nga nga sagal sa jabar. Mm-hmm. parce que dafa am yoo xamante ni boo ko defee du sag. Mm-hmm. waaw du sag waaw te nag da nga war a sagal sa jabar yëkkati ko parce que ci kaw nga koy yëkkati yaa ngi yëkkati ko man loolu mooy li nga xamante ni bii moom laa gëm. Mm-hmm. dama gëm ni boo ko jéemee toroxal. du moom ngay toroxal mais sa bopp ngay toroxal. parce que kii dañ koo yëkkati jox la ko. donc yëkkatikoom sag yëkkatiku la. dëgg la donc il faut que nit ñi gën a loolu te ngeen xam ne nag place yi moom. kii la yaatul macha allah yow def moom benn rek nga am. baatu da jàddu koñ. mbaa dangaa jàdd jàddu koñ. non jàddu koñ mbaa da ngaa koñ. waa jàddu koñ. waaw xam baat bu fi yàgg la kon gars yi yàgg na jàdd. Hmm. ah. jigéen ñaa fa ne. waaw ña leen di jàddal nag. <laughs> waaw kon yooyu moom ñu fi yàgg la. léegi nag comme dëkkin wi ak immeuble yi tamit. Hmm. léegi da jàdd ci apartement bi. alhamdulilah Omar. <laughs> léegi koñ yi appartement bi lay jàdd ndax koñ yi bareetul. Hmm? ah moo tax gars di jàdd. non mais loolu la. suka mbay man gis naa koo xam ne dafa luy suulee benn néeg benn gel di doxaan gel bi di ko fayal néeg bi. Hmm. te gel bi nangu na nekk ak moom si appartement bi du fay. ak jabaram ak jabaram. mi ngi mi ngi fay kay. saa yu amee problème gel bi mooy ah, ñëw aaraat. waaw mi ngi fay na na muy fay ak. fay ak fay waaw. <laughs> fay ruq ngi fay xam ne pour wax la ni des fois. suulee. <laughs> ndaw sa nag moo ko def nag. nan la ñuy suulee jéegum lëng nga toog. ah des fois xam nga sa jëkkër ne ci ay situation genre doo <laughs> sax wóorul. am na am na loolu am na jigéen ñi ñoo xaw a ñàkk mus fenn mm-hmm. kii yàq soxnaam ndax yow mm-hmm. kooku ma matu matu mm-hmm. kooku ko maanaam mu def ko rek yow dafa da nga ko war a ragal déjà da ko war a ragal déjà parce que moom ki mu gën a jege lay yàq kon yow ci yàq la la jëm bu paree rek yow dalay yàq pour jëm am keneen léegi dafa am foo xam ne jigéen ñi nag man foofu ñoom laay waxal. Mm-hmm. góor ñi li fi ñuy jàdd ak li ñuy def ak ñoom it seen yooyu yëpp dara jaadut yoo war a respecté seen femme parce que des fois ànd nawle da cee baax. Mm-hmm. parce que ki nga takk yaay sangam mais daa am fu ngeen egg ci àddina. Mm-hmm. ay nawle ngeen parce que juróol na la njaboot ay responsabilité tegu na ci moom tey ki la nekkal ci kër gi da nga koy nekkal ci naaj wi. Mm-hmm. parce que déjà yow boo mënee dem sa xel dal rek. ki lay ki lay xaar ci kër gi moo tax mm-hmm. parce que boo xoolee yor xale dafa métti yor kër dafa métti mais mm-hmm. jigéen dañ ciy jouer rôle bu am solo. kon ki la taxawoo noonu da ci am solo. mais aussi tamit ñoom yokk taxawaay pour man. daf ci am góor ñoo xam ne du taar la leen jigéen di gondee. du alal yi ñu fi doon wax sànq yëpp naan ay taay fen am na góor ñoo xam ne affection. moo leen di dundal. te ñun suñu jigéen ñu bari doonoo xaw a des ci côté boobu. affection affection. maanaam yëg-yëg am na góor ñoo xam ne dañuy bëgg ku leen yëg koo xam ne bu ñu ñëwee bu dee añ leen bëgg nga tegal leen ko toggal leen li gën ci ñoom mm-hmm. mais tegal leen ataaya ñu naan defal leen ci mm-hmm. xala maanaam maanaam di leen toppatoo am ñoo xam ne il ne vit que de l'affection dafa am ci ay nit dafa am ci dafa am ci ay nit ah di ko enjoyal waa mm-hmm. di nga am na ñoo xam ne di nga boon tegee ci cadre mel noonu yeneen yëpp mën nañ bàyyi muy sedd mm-hmm. ñoom dañuy mel ne ab xale rek mm-hmm. ñoom fekk bu ñu wàccee yooyu yëpp mu ngi mat ñoom soxlawuñu di gën di dem feneen mais daf ci am jigéen ñoo xam ne tey ji da lay miin ba yab la comme li wàllu sekk doon wax boo koy boo ko xoola boo koy muñal mu foog ni moom moo la moom wala da nga ko ragal <laughs> dafa am jigéen ñoo xam ne dañuy miin seen borom kër ba jàpp ni waratuñ def dara pour moom mm-hmm. nan daan sonne ci moom au début waratuñ ko sonne ci moom mm-hmm. léegi nag bu dee ni góor gi dafa toll benn niveau bu maanaam daje koo xam ne tey ji mm-hmm. ci mbedd mi am na xale jigéen yoo xam ne mais danga leen di seeti mais nga xool ni moom lépp lu manqué ci sa biir sëy mi ngi ci ñoom. Mm-hmm. waxuma ci côté foode mm-hmm. mais ci côté nan lay dalalee góor nan lañ koy teree nan lañ koy accueillir nan lañ koy taxawoo. yooyu yëpp yooyu nag bu dee ni yow jigéen ji nga takk di def ci moom. guddi ak bëccëg. joxe dépasse di ko xel di ko gontal mënu ko ci yow ki nga dajal ci mbedd mi mën la téye à ce point. da nga koy téye benn moment sa xel mun na toxu ci moom. ba boo wàccee balaa ngay egg kër ga jaar fa naan ataaya loolu <laughs> ah <laughs> yooyu day am loolu tax des fois du ay jagare wala tiire des fois affection bi. Mm-hmm. yëg-yëg mu yëg ni moom mooy kilifa gi mais bu yëg yëgsee mu yëg ni moom. yëgsi na mm-hmm. ça dépend ci ni nga koy recevoir léegi nag loolu bu ko mënul am ci yow. Mm-hmm. léegi dem ami ko feneen des fois day indi problème yu mel noonu. mooy waral waa di jàdd jàdd bi nag gënul waaye nag. Euh, entre le pire et le mal moom il faut choisir le mal. dëgg la <laughs> ñëwal yow. Ah, ma ñëw man <laughs> ah. xam nga di da ngaa indi. <laughs> Euh, kii dafa dafa wax lu am solo. Mm-hmm. Euh, moom Omar Gueye. Euh, li nga xam li nga wax ni ci affection góor da ko bëgg torop lépp loo xam ni bul bàyyi benn espace mm-hmm. góor jigéen bi bàyyi espace rek dara dugg mm-hmm. boo bàyyi espace rek ana ana bàyyi benn espace xam nga ana gis nga ana gis nga ana euh, ma wax la dara saa euh, gis nga ci sa baa moom ci baaxaayam. yaa yàq na li nga bëggoon wax. wallaay xaw li ma bëggoon wax sax yàq na ko. non non espace moo espace sama non espace bi mooy. Euh, xam nga des fois nga wàcc. comme li nga bëgg a def nii li moom pour affaire de. ñeneen moo tax man dama bëgg man dama bëgg ngeen bañ a jël mbirum sëy maanaam bu góor takkee rek jigéen defe ne dafa matalut. déedéet ça mat am na. xam nga tey euh, tey euh, tey Boubacar bu ñëwoon tey di ma wax dara ci ana nan aana lii ak lii ak lii bu boobaa man du ma ko naw xam nga ndax lan noo def sa aawa bu sa ñaara ñëwee da koy def. Mhm. ne mais sa aawa bu fekkee am na fu la matale lépp loo gis ci moom rek du la ngeen yëm yéen ñaar jikko kon donc foofu dara amu fa kon foofu yéen jàmm rek ngeen am ndax nga yëm jikko rek moom nga mën a nekkal. Mhm. mais dañuy wax góor kii dafa wax benn bu am solo dañuy espace. dañuy am na góor na xam ne bu amuñu affection seen jëkkër mayuñu leen jàmm mm-hmm. te effectivement boo mayul sa jëkkër jàmm keneen may ko jàmm mm-hmm. tey boo bu ñëwee tey nga sonal ko lii ak lii ak lii su génnee xale bu jigéen bu faras lay dajal loolu doo ko may amee ay doom sax waratul la tal voilà mm-hmm. loolu doo ko may ndax soo ko mayee mu génn dem yoonam léegi te xool ci keneen bu ko defee yow la nga ko daawul defal bu toogee daal ni sama non sama soxna dafa bari wax sama soxna dafa lii sama soxna dafa laa man góor gu ko daan man góor gu ko def de moom du ma la naw mm-hmm. góor gu def loolu du ma ko man gis naa koo xam ne ci benn appartement bi li nga wax ni am naa koo xam ne dama toog ci benn salon mu koy wax dama tiit man dama tiit ba ki ma leen dama ne ko yow nga ni lan mu ne waaw te dañ daf ko def fierté mm-hmm. moom gel bi da koo def fierté waaw bu ñëwee lii lii ak lii bu demee Auchan lu mu jëndal jabaram man moom la koy jëndal man mujj gi dama. en fait en fait. waaw ñu ñu koy sekkal. waaw ñoo du tee seen laaj. ñoo moo ko tamit pareen dañuy bëgg a déstabiliser. ku jigéen ki te ku jigéen ki dem na eh, jigéen ki meree ba saa yi day am bu ñuy teg ñooñu jigéen ki. dem na ba xam ni kii la jëkkëram di doxal. léegi nag jigéen ji bu mu muusul rek mooy mer. keneen bu nga def yëfi dof yëfi du ma ko def génn waa ndaw solo waaw kay waaw kay mais man gis naa ko man bi ma ko gisee ku jigéen ki dama ko mere mais dama ne ko parce que loolu rafetul surtout nga doog ci salon di ko wax daal ni diw lii ak lii dëgg la du du naka su dul noonu ah, gis na ma didi mhm. loo def sa loo def jëkkëru jàmbur ñaa waxal ni bis bu ma amee jëkkër dan ma ko def loolu rek la euh, Fatou waaw su kaa foofu am na solo. Euh, mooy loo def jëkkëru jàmbur. nañ la ko def loo def jabaru jàmbur. nañ la ko def sa jabar doo def doomu jàmbur tam. xaaral ñu def ko sa doom euh, maanaam jigéen ji nga xam ne moo bokk ak euh, maanaam ki nga bokkal immeuble mhm. wala saa wax na ko même secteur bi sax pour man ci sama xalaat war nga seexlu maanaam di man bokk noonu laa mel maanaam fi ma dëkk fi ma mhm. dëkk ah. non du ma du ma kii foofu maanaam. Euh, doo fa xool doo fa xool kenn lu ma non maanaam surtout ñi nga xam ne xam naa seeni borom kër. Mhm. wala xam naa leen surtout. Mhm. loolu sama rab loolu la gën a bañ bokk si nit bu ma xamee nit bu koy def sax walla nit bu koy def sax bu ma ko xamee. Euh, maanaam ci ruq naa wax ak yow ci lu ma mën waxantuma laat nag euh, maanaam nga nga voilà doon man parce que du ma ko def mhm. nit ki da nga war seex loolu Omar wax na ko ci commencement ngor ngor ak maanaam dignité daf la warul di may yenn yi boo ko amee maanaam di nga jombale sa bopp yenn yi dangay xool sa diggante ak sa borom mais xool ne li est-ce que bu doon man la parce que tey robe bi may solal di di mii naa ko natt ci sama bopp ba pare. Mhm. tey jigéen nga soxla woo sa borom kër tey nga dëkk ak moom ci même kër gi ah. nga dem bëggeel amul lan. déggoo waykat ba na bu kenn jugé bu kenn wax bu doon man non non nit mën na ne bu doon man la nit mën na ne bu doon bu doon man la parce que parce que lu tax mooy nit mën na ne bu doon man la mooy am na ci beneen sens mais am na man tey dund naa maanaam ak xarit mhm. wala sax ay ay dëkkandoo wala yeneen yoo xam ne yoo xam ne seeni borom kër dañuy def ay affaires yoo xam ne sama kanam mais toujours dignité boobu buñ koy gis ci yow amaana jigéen sa xarit da si mhm. gis waa ji jantal doon kilifa xam na yow sa jëkkër ku baax la mais ni nga ko war a téye des na doo ko présenté mu ne kii ba mu ko aaloon non jigéen jigéen jigéen moom jigéen moom maanaam saa wax na ko sànq te muy dëgg gis nga jigéen jongeel jongeel ba mel ni uy nul ay ni comme ni ñu koy waxee gis nga sa jëkkër bu naree doxaan kenn mënu dara dara su naree takk beneen jabar mënoo si dara psychologiquement ñun nañu pere foofu comme li saa wax dëgg la dafa am solo parce que dañ naan euh, sama sama sama mais du euh, góor du sama suñu suñu <laughs> suñu suñu boobu nag neexul mais c'est la c'est sama réalité parce que tey ji yow sa jëkkër mënoo jonge jonge bu ne man kese ah. lay doon man ak moom ki signé benn jabar sax mu nga mu nga ci yeneen ruq ya di ko lijjanti lay mere la yow ah? <laughs> bi non non dama ne la yow ah, nga doo sunu saa ñi daan kese macha allah waaw waaw étape saa daa jënd bàmmeel Omar góor ñi ama. nee na dangaa jël bari ah bu ndax a taab. saa yow ba léegi ñaareel. xam naa ne ñaareel la ñaareel ñi daan tey kontaan na yow tamit xam nga ne ñi daan tey du ma ko du ko kii di ko wutal leneen yow sama góor nga ñi daan moom moom kese kam du keneen bokkul. jigéen ñi dañu am fula góor ñi am fula daal lool laa am lu ma wax ci côté boobu. Mm-hmm. macha allah. <laughs> Fatou ban point nga ne nga ne. ah da ku jënd maam yow. ah yaa ngi Omar Bund Xataab. yaa ngi Omar Bund Xataab xam nga ne fu ngeen nekk nii moom. kii ngeen man teere laa jël. man jënd ko baax na. ay Omar yaa ngi kii de. teere yow nga jënd. Omar Omar Omar la kay jeex Omar du Omar du takk kenn ñoom ñaar nii mooy yow bàyyi leen ma. xam nga di tollu âge boo xam ne dootoo wut bëggati loolu. balaa di am di nga boo di paa yow tey ko <laughs> yow Sadio ku la fekk fi nga naan da ngay takk ñaareel lu mu lay wax yow bu ma la fekkee ngay takk ñaareel dinaa wax ak yow yow mais saa yu amoo jot xam dafa am di góor ñoo xam dañoo amul jotu ay takk ñaareel ay lii yow amoo jot boobu méng amoo jot su kaa moytu nag am non non non non sérieusement sérieusement gis nga dafa am ñoo déedéet wala non déedéet wala euh, euh, kii dafa am ñoo xam ne mhm. amuñu jotu mhm. na amuñu jotu toog di xalaat naan di xamuñu ni xalaat non sérieusement man kay xam fa laa nag ah, man ah. man benn xalaat laa am sérieux am des damay toog ma ni man mhm. li ma sama aw mu ña waaw est-ce que keneen dina la ko merci beaucoup parce que man di ci man dama libre xam nga man dama libre liberté boobu nag man man ma rek tey yow xam nga tey yow nga jiital macha allah xam nga tey léegi nag mën nga am liberté boobu ba mu liggéey bi ñoo yor dafa laaj liberté liberté boobu yow mën nga ko man sax bu may wax alante di nga sant ma am liberté ci côté boobu. mais di nga dugg ci ñaareel boo xam ne tey loolu la lay. bëgg léegi nag kooku léegi ay problème lay doon ci yow. doo wax ñaar tey xam nga di tey. Euh, nga nekk di nga nekk euh, nga nekk nit koo xam ni. Euh, di nga di nga nekk nit koo xam ni de doo am loo xam da nga koy da naan kii amatuma jot boobu. jot boobu mooy tey saa ku ko fekk mu jël otoom di taal di seeti jigéen naa ko zatam dama lay takk ñaareel waaye ah, ah bu jigéen ñëwee nag. loolu mënul c'est que na dafa mënta ne. bu jigéen des fois parce que des fois ñu ne. xool sérieusement dafa am ñoo xam ne nit ay nit yoo xam ne. système bi kii ci ne. non dafa am ñoo xam ne dañoo mën ko promotion canapé. doo moom du genre boobu yu ñàkk fayda doo ko def kon yow man. waaye bu tëbee tëb nag. guro yàlla bu mu ko gis yàlla bu mu gis loolu. yàlla bu mu gis jigéen ji ko ji koy. <laughs> bëgg na la kay bëgg na la de macha allah su ka mbay mu nekk loo xam ne kàddu yu rafet na waaye tamit ku ci nekk wax nga ci sa xalaat mm. waaye man dama naan li alaaji saax li dama koy dëgg rek ci góor dangay déedéet góor da ngay sagal sa soxna ndax nag boo sagul sa soxna yow doo am sag ci kanam ki nga xam ne moom ngay mm-hmm. waxal mm-hmm. nee naa la jigéen boo ko toroxalee wala nga yekk ko yenn yu mel am na ñoo xam dañuy dem doxaani di yekk lu mel ni xeme seen jabar mm-hmm. mais la nga yekk lu mel ni xeme sa sa jabar boo ne ginnaaw kooku lu raw la lay yekk kon nag nañ joxaat cëri jigéen yi joxaat cëri mooy suñu <laughs> soxna yi mooy soxna yi kon nag Souka Mbaye ma lay jox di daje ba àllarba incha allah ci beneen